mel na ni mbir mi nekkatul sàcc waaye nag siif ndax si nit yi ngeen ko jàngatee ci image yi Samba Boy yi toll si juróom xaaruñu sax mu lëndëm ñoo ngi ñëw fii si fi ñu duppee ara nindi dugg si benn boutique alimentation jël fa xaalis bu takku salfaañe ko boole ko nag xupp borom boutique bi ak seen ay armes yi ñu yor mbir mi mi ngi am ñaari fan si weeru janvier yemook alxames te nag bi ñuy ñëw sax fekk na foofu mi ngi xumb loolu waaye teew leen def li ñu bëgg def ñoom Samba Boy yi si information yi ñu jot nee nañu bi ñuy ñëw ñoo ngi dugg si auto transport urbain yi daw si diggante nindi ak Touba. nag wàccee lañu dugg ci boutique bi def li ñuy def génnaat nànk dugg ci mbooy bi dem seen yoon ginnaaw loolu la gendarmerie ñëw ngir saytu mbir mi lii nag day gën a firndeel ni gox bii di Ndindy moom neenu na leen ci wàllu agression yi ndax yàggul rek notable yi délégué de quartier yi jeunesse bi association yi ñëpp génnoon nañu ci ndigalu Serigne Abdou Fatah Mbacke yebaloon nag doomam Serigne xaadi Mbacke mu présider benn réunion waxtaan ci wàllub kaaraange ci Ndindy waaye mel na ni sax nag barab ban doon amalee réunion ba foofee lanu ñëw def fa jëf ju ñaaw ji ba tey lii nag di firndeel ni moom ñàkk kaaraange ci gox bi di Touba rawat na ci Ndindy doon na nag lu jéggi dayo jamono ji rawat na nag ci ndorteelu atum 2020